salaamaaleykum euh, cher internautes euh, ñu ngi leen di ñu di leen dalal euh, ci Sénégo donc tey Sénégo TV mu ngi dalal madame Awa Guèye donc mu nekk responsable APR au niveau de Kaolack aussi nekkoon député au niveau de la treizième législature honorable ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Khalil di nuyu waa Sénégo yëpp di nuyu aussi internautes yi ñuy seetaan yëpp mhm. di ñaan émission bi am solo te nit ñi aussi dégg ko ni mu waree. Mhm. ok donc euh, bon pour bañ a sori tuuti si question euh, pour commencer un peu donc gis nañu actualité bi actuellement troisième mandat moo xaw a lëmbee tuuti dëkk bi donc tout à l'heure gis nañu aussi société civile génn nañu donc euh, def benn genre collectif y compris le mouvement Y'en a pour barrer la route au président Macky Sall donc euh, pour mu bañ def troisième mandat donc déjà avant ñuy duggu ci question boobu noonu donc yow est-ce que vous êtes pour ou contre le troisième Moi, je suis pour que le président de la République, Macky Sall, brigue un troisième mandat ou alors un deuxième mandat de cinq ans. Pourquoi Parce qu'il y va de l'avenir du Sénégal. Mhm. Nous sommes dans un contexte boo xam ne mhm. ah waa olof waaye ñu ngi nekk ci contexte boo xam ne gis nañu li xew lépp ci sous région bi mhm. gis nañu nous sommes dans un dans une ceinture de feu gis nañu ne le Sénégal dafa am pétrole am gaz ñu commencé di ko exploiter te président de la république am na un bilan boo xam ne kenn mënu koo attaquer ci bilan boobu beneen bi ci des président de la république assuré na une stabilité politique une économique une stabilité sociale au niveau du Sénégal kon donc il sert à rien que ñu koy changer et puis la constitution luy permet de briguer un autre quinquennat parce que nag dëkku yoon la nekk te constitution bi li mu wax dafa leer nañ tubaab lay làkk duñu ay constitutionnaliste waaye dégg nañu tubaab mhm. li mu wax mooy le mandat du président de la République est de cinq ans mhm. nul ne peut plus de deux mandats exécutifs et eh, de cinq ans la wax. Mhm. kon yow donc waruñoo dellu ginnaaw ñu ay waxu sept ans non mandat wu bi bokk ci parce que dana le mandat est de cinq waxul le mandat était de sept ans da le mandat est de cinq ans ba pare nag doole ci neen mille ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. mais est-ce que kon li li li waxu Abdoulaye moo nar a xuri Macky Sall par rapport ak euh, déjà rek soo seetloo même sorti wu société civile bi donc. waaw xam nga euh, li ma ko waxee sànq rek. Mhm. société civile nee ñu dañoo regrouper autour d'un collectif pour barrer la route au président Macky Sall. Mhm. man dama leen di wax ne li ñu waroon a def kañ mooy mooy ñoom nañu regrouper wu autour d'un collectif pour le respect strict de la constitution ñu bàyyi constitutionnaliste yi ñu décider et puis aussi on a le conseil constitutionnel qui la pour valider les candidatures xam nga yow bu la neexee tey nga déclarer sa candidature bu la neexee euh, euh, keneen tamit déclarer candidature am mm-hmm. mais kuréel gi nga xam ne moo war a valider candidature yooyu mu ngi fi. li société civile waroon wax kañ dafa waroon wax askan wi na ñëpp dal bu kenn génn bu kenn xeex bu kenn sànni xeer bu kenn dàqante faisons confiance à nos institutions ñu bàyyi conseil constitutionnel mu décider bu conseil constitutionnel valider la candidature du président Macky Sall ku ci nekk na dem bay li baayam comme ni muy def kenn ku ci nekk na dem campagne bu ñu campagner la peuple va arbitrer. ok loolu ça allait nous éviter d'éventuels troubles. loolu moo doon cëru société civile. Mhm. donc mais est-ce que est-ce que ñoom tiituñu que ni euh, le conseil constitutionnel aussi il est pour il roule pour pour euh, le président Macky Sall peut-être. non non le conseil constitutionnel ne roule pas pour le président Macky Sall. dire cela dire cela c'est fragiliser nos institutions. Mhm. dire cela c'est manquer de respect à nos magistrats à nos institutions. Mhm. parce que nag yoon ñëpp la fi nekkal. comme nag yoon ñëpp la fi nekkal nañ leen wóolu. bien que président Macky Sall moo leen tànn teg leen fa waaye ñoom tamit dañu prêter serment te per serment boobu ñu prêter pour rien au monde duñ ko violer pour les beaux yeux de quelqu'un mm-hmm. faisons confiance à nos institutions ñu bàyyi leen ñoom ñu def li ñu war a def bu ñu nee ah dañ koy valider kat parce que am na ci droit ñu dem campagne su fekkee nee nañ ah président Macky Sall kat amoo droit def troisième mandat ñoo xam ne loolu la def su ko defee ku ci nekk dem def li nga war def mais nag waruñu taxaw di woo askan wi ci confrontation di wax ay waxu moor moor ak ay waxu blessé loolu du seen cër mhm. li ñu war a def mooy ñu wax ak askan wi wax ak les mouvement de la société civile yi ci bokk ñëpp ne leen na ñëpp dal na ñëpp ànd ak dal déglu conseil constitutionnel lu conseil constitutionnel wax ñu tënku ci ku ci nekk dem campagne et le peuple est assez mature et le peuple peut arbitrer. ok mais c' vrai que aussi tout à l' bokk nga ci cadre APR ici donc te aussi euh, est ce que ce sont pas vous en tant que cadre APR euh, yéenay pousse le président Macky Sall à vouloir. Euh, def euh, un second quinquennat wala un troisième mandat. waaw man moom dama li ma wax dafa leer nañ man moom Awa Gueye dama ne li ma bëgg mooy président Macky Sall na briguer un autre mandat de cinq ans. mais gisoo ni aussi war na teg beneen nit. li tax def euh, li ma koy wax ah. mooy. damay laaj toujours lan la ñuy doyee président de la république. Mhm. luñ koy doyee. Mhm. président de la république liñ koy doyee mooy na defar dëkk bi. te président de la république au plan des infrastructures il a un bilan boo xam ne kenn mënu ko ci attaqué. au plan sociale am na bilan boo xam ne kenn mënu ko cee attaqué xoolal rek dans le monde inflation bi xoolal nit ñi ni ñu sondee dans le monde président de la république jël cent vingt milliards def ko ci dund gi def ko ci gasoil bi def ko ci électricité bi pour que nit ñi mën a am coono bu ëpp bu jéggi dayoo beneen bi ci des sooy présenté président Macky danga naan ko am yar la ko am teggin la du wax lu ñaaw du xuloo du xeex ute na ak xale yi nga xam ne dañ fi nekk li toujours rek di jamb ay ay ay melul noonu tudduma kenn nag xale yi fi nekk di jàmb ay ay chaque fois bu tey ñu ne combat mortel bu subaa ñu ne lii moom melul noonu mm-hmm. kon nag nañ ko bàyyi mu eggale liggéeyam il droit à un autre mandat de cinq ans nañ ko bàyyi mu dem wax ak askan wi su ko askan wi wóoluwaatee ba jox ko cinq ans yooyu mu déroulé. Mhm. su askan wi décidé leneen nag ñu xam ne leneen la décidé. ah mais est-ce que aussi c'est pas des élections aussi même su nekkoon tey jii population yi wala conseil constitutionnel may na ko mu dem euh, briguer un autre mandat tey jii est-ce que ce sont pas des élections déjà perdues d'avance suñu analyser par rapport ak seen résultats yi nga am ci législatives yi passé locales yi passé donc euh, même surtout au niveau de certaines euh, localités. bon perdu d'avance duñu ko wax parce que rien n'est encore perdu. parce que boo jëlee élections locales yi mhm. c'est vrai on a perdu des grandes ville waaye quand ñun ñoo gagné opposition bi ñu jël élection législative mhm. boobu yi tamit ñun ñoo leen gagné parce que ki topp si ñun di waa Yewwi ñoom 56 députés la ñu am ñun ñu am 82 députés mhm. kon ñoo leen gagné li nga xam ne nag moo fi des mooy élection locale benn nit la buy wax ak localité am élection législative tamit ay nit la ñuy tànn ci gox ñuy wax ak ñooñu pour représenter leen au niveau de l'Assemblée nationale mm-hmm. par contre président de la République nag c'est la rencontre d'un homme avec son peuple mm-hmm. et président Macky Sall yaakaar naa ne bu jógee jàkkaarloog peuple bi wax ak moom man de li ma gëm Awa Gueye mooy président Macky Sall li mu def ci réew mi yëpp ak nit ñi ni ñu ko gëmee boo duggee à l'intérieur du biir Sénégal président de la République bu taxawee jàkkaarloog askan dinañ ko offrir un second mandat il va passer au premier tour bu boobaa ce sera avec un que ñu ngi wax waxu amnistie Karim ñett ñaar ñooñu aussi suy ñëwaatee boole ci Sonko donc euh, échec. waaw ba bi dina xaw a day tax làng gi gën neex rek. mais c'est sûr et certain que soo demee deuxième tour euh, est-ce que du mën a jàll. dañ tour ak ñoom ñi xajuñu ci ñoom yow président Macky Sall li mu am li mu defal askan wi yëpp mhm. mais xajul ci ñoom mhm. ñoom ay waxu kese lañ fi nekkee defaguñ fi dara dige dige sax defuñu ko fi woon xam nga sax opposition di nga deman kat bu ngeen ma falee dinaa leen defal nangam ak nangam mhm. ñoom déggoo leen lenn lu ñu wax ne moom la ñuy defal askan wi ñoom seen wax yëpp waxu troisième mandat la waxu homosexualité ay yooyu rek la ñuy wax. ah mais Sonko moom mu ngi déjà euh, présenté programme boobu bu Euh, programme ban euh, te mu ngi def euh, tuuru région yi aussi. donc waaw mu ngi moom moom déjà programme boobu muy muy présenté sax li mu wax ci biir programme bi yëpp actuellement moom mu ngi koy weddi ci biir programme am livre am boobu ma bindoon wax fi woon ay cumul de mandat wax ko fi woon mais tey gis na leen ñu ngi def ay cumul de mandat donc populisme bi tuur lëndëm gi ni ñu koy waxee naxaate bi moo fi bari te nag sénégalais yi gis nga leen dañ naan nemm rek ñoom mais yeewu nañu de bu dara desul lu dul tànn danañ tànn ka nga xam ne kii moo mën a jëmale Sénégal kanam ah. te bu ñu am amnistier Karim Wade amnistier Khalifa dañ leen di ñaan ñu ñëw ñëw bi ñu dugg ci ci géew bi nañ dugg ci géew bi rek ku ci nekk dem wuti bu boobaa bu jënd sawee dinañ xam kan moo man kenn. mais aussi est que jàpp gënoo jàpp ni dina gën a métti yéen surtout au niveau de Kaolack parce que gis nañu responsable politique APRS yu bëri déggowuñu muy Dakar mais surtout Kaolack ba yow mii fi nga xam ne foofu nga bokk donc euh, ay ponkal ñoo fa nekk am na DG Sénélec bi déjà yow yaa ngi fa euh, Mariama Sarr Modou Ndiaye Rahma bo même euh, les jeunes Ousmane Nawel et les autres donc bëri na local yi passé bon mën nañ jàpp ne eh, division boobu moo andi seen perte au niveau de Kaolack donc est-ce que jotul aussi ngeen boole seen doole benn doon benn d'accord naa ak yow parce que bi ñuy dem élection locale mhm. ak Kaolack vraiment on était très divisé mhm. ñii jaar fii ñii jaar fii ku ci nekk di xëcc si sa côté loo ci gis Serigne Mboup dafa ñëw gañañu avec vingt-trois mille voix de différence mhm. ñuy dem élection législative daal di ne ah il faut tirer la leçon de cette défaite si on est divisé on est faible si on est ensemble on est fort ñu jéem a teer suñu ay divergence jéem a ànd bien que ànduñu woon parfaitement waaye def nañ ci ay effort te effort yooyu jul na résultat loolu moo tax bi ñu demee élection législative vingt-trois mille voix la ñu gagné woon ci élection locale yi mais cette fois yi mu ngi ñu gagné ak douze mille voix donc ça veut dire que gap bi réduire nañ ko bu baax a baax a baax bu ñu continuer nag dynamique bii ñu nekk muy dynamique gu ànd dynamique gu unitaire dynamique gu bokk ndey bokk baay dynamique gu benn objectif la ñu am muy faire passer le président de la république yaakaar naa ne bu ñu demaatee Kaolack dinañu eh, am solo jàpp nga ni instant bi ak peut-être su ngeen démonté ji présidentielle soit avec le président Macky Sall wala avec son dauphin donc est-ce que wóor na la ni division boobu euh, euh, a ànd comme ni ni mu waaw dinañ mën a ànd parce que actuellement enjeu bi benn la mhm. euh, actuellement nekkul kii day nekk maire nekkul mhm. kii day nekk député enjeu bi benn enjeu la mhm. mooy nañu fal la président de la république Macky Sall au premier tour defe naa ne man ni ma ko bëggee noonu la sama yeneen camarade ya nekkee Kaolack bëggee ko noonu moo du Ndiaye ma noonu la ko bëggee Nafissatou Diop noonu la ko bëggee ak keneen ak keneen Pape Demba bi tey noonu la ko bëggee donc ñun ñëpp comme noonu lañ ko bëggee plus maintenant nos camarades qui sont dans le département et qui ont toujours gagné bu ñu boolee loolu yëpp amul problème on va passer dès le premier tour. ok ñu fàttali ni aussi nekkoon nga fi député treizième législature euh, madame Awa Guèye donc ñu ñëw tuuti peut-être euh, si kaw assemblée nationale li fi jotoon xew aussi si installation bi gis nañ ko donc euh, avec le cas Mimi Touré qui voulait être le président de mu ngi après par na génn na mais. bañ na joxe postam député parce que nee na c'est à grâce à elle tey euh, le président Macky Sall am ni mu am au niveau de l'Assemblée nationale donc euh, naka nga jàngatee déjà la cette situation euh, avec Mimi waaw situation bi am à l'Assemblée avec notre camarade et notre seur Mimi man vraiment dafa may metti trop su may wax daf may metti Mimi Touré dañ ko doon xaar feneen parce que Mimi responsable la am na expérience politique. man Awa Gueye moo ma ëpp expérience politique foofu waaye erreur yi mu def man Awa Gueye duma ko def xam nga lu tax c'est pas parce que jiite nga une liste nationale que forcément yaay nekk président de l'Assemblée nationale am nañ fi ay exemples yu dul jeex 2017 Mohamed Dione moo jiite woon liste nationale te nekkul président Assemblée nationale amoon nañ ko fi ak Idrissa Seck mu jiite liste nationale nekkul président assemblée. amoon nañ ko fi ak Ousmane Tanor Dieng. Mhm. jiite la liste nationale nekkul président assemblée. kon moom bu fekkente ne dafa jiite liste bi suñu sœur la nag ñun yéene woon nañ ñu am euh, euh, présidente assemblée nationale. Mhm. pour une première mais comme président de la république mi nga xam ne moo yore toutes les informations. Mhm. yoo xam ne ñun amuñu ko. moom mooy apprécier moo dem ba xool ne mënu koo def président assemblée nationale mm. mu wax ko ko dafa waroon a rek plier wu à la décision de ki nga xam ne moo ko tànnoon def ko te de liste. Mm-hmm. est que du woon waxtaan li ñu waxtaanoon ba pare ñoom ñaar. même bu ñu ko waxtaanee ba pare déggoo li ma la wax. Mm-hmm. même bu ñu ko waxtaanee ba pare ki nga xam ne li mu xam xamoo ko. Mm-hmm. fa mu yegg ci information eggoo fa moom moo la oo jiital la mu woo ne la du ma la tegatikat mais nangul ko ko nangul ko ko te toog xaar leneen xam ne nag tu n'as pas été la plus militante dans le parti notre sœur elle est venue en 2010 fekk na boobu 2008 nit ñaa ngi fii di rey seen bopp ci parti bi mu ñëw 2010 président Macky Sall defal ko lu ne nag def ko fi ministre de la justice premier ministre président conseil économique social environnemental envoyé spécial tête de liste loolu yëpp président Macky Sall ko ko defal kon tey pour histoire de président de l'Assemblée nationale lii ci xew yëpp mënoon naa ñàkk expérience politique bi mu am mënoon na comprendre ce qu'on appelle la la la réalité politique. parce que réalité politique des fois day egg foo xam ne dangay taxaw jàngat ko apprécier ko pour xam fooy teg sa tànk donc bu jëloon temps tuuti def tuuti recul apprécier xool fi muy teg tànkam lii xew tey lépp lu am. léegi nag nee na mu ngi toujours biir Benno Bokk Yaakaar loolu la wax mais nee na député non inscrit la mhm. loolu ay kaddu la waaye ay jëf nag dafay signifier leneen. xam nga jëf mun na weeroo ak kaddu bu fekkee ne nag sa jëf dafa weeroo ak sa kaddu ah bu boobaa nag il faut ñu jël ay décisions yu leer nañ. mais moom dafa mel ni si taxaw taxawaayu opposition la gën a taxawee actuellement que. Euh, moom laa lay wax donc parce que ñu bëri keroog même ñu ngi laam-laamee boobu entre gisee moog Ousmane Sonko. waaw uh-huh. moo lay la moom laa ne la wax nag ak euh, jëf mun nañoo uute. Uh-huh. mun nga ne benn bokk yaakaar laa nekk. Uh-huh. waaye ngay dem di teg ay jëf yoo xam ne. waa Benno Bokk Yaakaar duñ ko cautionné te damay wax ñun jigéen ñi en politique dañu war toujours di wane le bon exemple mm-hmm. xam nga li ñuy wax reniement mm-hmm. weddi sa bopp ah man de awagay ruus naa ko te weddi sa bopp mooy lan mooy ma jàkkaarloog yow tey di la yekk mbelengaan di la xas suba may ñëw di ànd ak yow duma ko mës a def wala ma ànd ak yow di la tagg di la wax lu baax suba ma ñëw bëgg laa bëgg laa bëgg laa euh, yëkkame la nga xam loolu duma ko def. mais la connaissance est-ce que yaakaar nga ni war na mën a gis ak Sonko si li la ñuy wax. en tout cas dégg naa nag ñu koy wax waaye su ko defee weddi na boppam su ko defee tuutil na boppam su ko defee dem na foo xam ne fii du place am parce que nag fàtte xaju fi bàyyi bàyyi Ousmane bàyyi bàyyi Mimi démb la yàggul te nit day gëm boppam man mën naa d'accord Aminata Touré ne man damay dem sama làngu bopp man kese moo xam lu mu am jël expérience bi mu am ci élection <laughs> c'est pas des expériences encourageantes kon moom na dellu si biir këram biir këram gi nga xam ne fii la amee teraanga gu nekk na fi dellu si fii la xaj mu boole lu ko neex ak lu ko naqari dellu si biir këram ànd ak frère am bi nga xam ne desalu ko dara nag mu ànd ak moom accompagner ko loolu moo gën mais yeneen yi ñuy wax yépp ay wax la yoo xam ne lii du tus du dara donc elle était elle était même presque sur la euh, si même situation que Amadou Ba tey jii euh, il a été nommé premier ministre. donc mais ah, woon liste nationale bi. Mhm. est que dégg nga ko mu wax. waxul mu ngi ne pati jàpp ñaam man mi nga xam ne maa signé woon si récépissé APR président Macky Sall ba mu signé man maa metre maître Aline si Cissé signé ñun suñu ñetti tur yi ñoo nekk ci récépissé APR bi mhm. tey maa ngi nii. nekkuma député nekkuma dara waaye la ma gëmoon démb ak barki démb en 2008 tey laa ko gën a gëm. Mm-hmm. te tey laa gën a taxaw pour défendre la parti APR tey laa gën a taxaw pour défendre son excellence monsieur le président Macky Sall parce que nag li mu def ci réew mi kenn defagu ko. ok mais le choix de Amadou Ba en tant que premier ministre euh, naka nga ko jàngatee. bon nu ma koy jàngatee parce que le président quand même moom moo am par rapport ak euh, nomination en tant que profil bi surtout. waaw je suis c'est quelqu'un qui connaît le secteur xam na politique xam na état te yaakaar naa ne nekk na fi euh, ministre des finances euh, gérer les finances de l'état de manière exceptionnelle te itam nit ku dal la euh, donc bu ñu ko tànnee def ko premier ministre yaakaar naa ne li président di xaar ci gouvernement bi dinañ ko mën a def ni mu ko waxee nag nee na un gouvernement de combat bu ñu wax gouvernement de combat nag il faut que askan wi comprendre combat ban la ñuy wax wax ñu wàcc ci mbedd mi xeex de wala mm-hmm. xeex ak opposition bi ñun mm-hmm. opposition bi taluñu leen sax mm-hmm. xam nga gouvernement ba Kolda boobu pour ñan la pour que jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi ci biir réew mi askan wi di dékku ak moom ñu trouver ci ay solution loolu mooy seen combat te yaakaar naa ne ñu ngi ci commencé dox ay jéego ndax gis nga barki Demba Ndiaye organiser nañ des concertations sur la vie chère di jéem a xool ay pexe yu ñuy def pour mën a wàññi dund gi seet ay pexe yu ñuy def pour mën a wàññee location bi donc loolu foofu la ñuy xaar gouvernement bi et foofu la ñuy xaar aussi monsieur le premier ministre. ak surtout par rapport ak déclaration de politique générale ce sera pour bientôt message nga koy lancer. waaw déclaration de politique euh, générale bi di ko xaar rek. Mhm. parce que nag président de la république yaakaar naa ne dafa tracé yoon bu leer nañ mhm. muy euh, nu mu euh, plan Sénégal émergent. ñu yóbbu ko ba 2035 donc ñun lépp lu ñuy def rek ci foofu lañ koy jëlee moom nag bu ñëwee dina ci def ay précisions yu leer nañ li nga xam ne jot nañ ko def suñu ginnaaw mu ngi suñu ginnaaw mu dukk ci nag loo xam ne lii moo jëm si euh, année yi nga xam ne moom mooy ñëw mm. bu ñëwee dina ko wax député yi ba mu leer après booloo boobaa ñu xool naka lañ koy mettre en ok donc en tant que député de la treizième législature gis nañ fi aussi député bu bees jamono ji euh, Abbas Fall bokk euh, Pastef di accuser gestion une gestion nébuleuse une gestion nébuleuse autant pour moi donc au niveau de l'Assemblée nationale accuse fi Moustapha Niass accuse fi aussi député Awa donc euh, c' est vrai que amoon na fi coow lu mu ju bu mu xaw a jur aussi donc yow en tant que député donc ban réponse nga si mën a andi. waaw li ma ci mën a andi rek mooy <laughs> sos moom baaxul sos ak wax lu dul dëgg baaxul. Mhm. lislaam daf koy tere ngor nanguwu ko aada nanguwu ko nit suy wax day wax lu am te suñu collègue honorable député Awa génn na indil ko ay firnde yu leer nañ. parce que moom dafa wax ne ay pins ak ay écharpe ay macron mhm. la ñu commandé à cent millions kooku génn ne ko commande baa ngi nii kayit yaa ngi nii eggul sax dix million kon foofu yaakaar naa awma leen lu ma fay wax sos nag baaxul mhm. nit buy wax day wax lu leer da koy teg ci aussi ay preuve yu leer nañ loolu rek laa am lu may wax foofu ok donc euh, beneen aussi génn muy Mamadou Lamine Diallo sur les contrats contrats pétroliers waaw Mamadou Lamine Diallo ñoom à chaque fois dañuy wax ci contrat pétrolier yi waaye contrat pétrolier li ñu ci war a wax duñu koy wax parce que ñoom li ñu dëkk di wax askan wi mooy contrat pétrolier yi état yi dix dix pour cent la ci am mais loolu amul dix pour cent yooyu ñuy wax ak Petrosen ci exploitation bi la mhm. maanaam nit ki ñëw andi ay moyens am andi yëppam ne mankat damay gis damay wër bu ma gisee yow am nga ci 10 pour cent mhm. bu ma gisulee man maay perte mhm. mais loolu la Petrosen signé 10 pour cent mhm. mais au delà de ces 10 pour cent état bi dem na ba am ci lu ëpp Euh, lu ëpp cinquante pour cent yoo xam cinquante quatre pour cent yoo xam ne ci keesu état bi lay dugg ci mhm. exploitation pétrole et gaz te yaakaar naa ne budget bii nga xam ne ñu ngi koy voté am nañ ci plus de milliards yoo xam ne dafay jóge ci exploitation pétrole et gaz mhm. kon ñoom nañu bàyyi tuur lëndëm gi ñuy tuur lëmbal askan wi mhm. président de la république son excellence woote na woon na fi concertation sur le pétrole et le gaz ñoom ñoon di wax ñëpp gisoo fa kenn waaw c'est vrai que ñu bëri demuñu woon te foofu la ñu waroon a dem ñu wax wax ji ba mu leer mais demuñu président koy waajalaat nag waaye maa ngi leen di ñaan bi yoon su ko président woote waatee nañu dem lii ñuy wax ci mbedd yi di ko wax ci couloir yi. bu ñu mhm. demee ba jàkkaarloog son excellence jàkkaarloog expert yëpp ñu wax ko fa bu boobaa yëf yi leer une bonne fois. parce soo seetloo moom Mamadou Lamine li muy expliquer que ba gars yi bàyyi yi ñuy wax mais dugg ci chiffre carrément donc joxe chiffre en terme de CFA donc est ce que aussi li mu wax yéen wul maanaam. waaw xam nga tam pourcentage xam nga sénégalais am na loo xam ñoo ko mën a wax mhm. duma expert mm-hmm. pétrolier moom financier la mm-hmm. moom xëy na mën na dugg ci ci ci ci ay chiffres mm-hmm. mais ñun li ñu mën a wax mooy pétrole bi ak gaz bi exploitation président de la république teg na ay mécanismes yu leer nañ yoo xam ne ñun ñoo ko voté à l'assemblée nationale muy ay loi yu jëm ci contenu locale am ay loi yu jëm ci répartition des des recettes du pétrole et du gaz ñu teg ko su exploitation bi ñëwee ci loi yooyu la ñuy tënku pour mën ko delloo ci biir askan bi mm-hmm. mais dans tous les cas euh, euh, euh, nu mu tuddati askanu Sénégal du perte ci exploitation pétrole ak gaz boobu. ok donc honorable waxtu bi mu ngi ñu xaw a xooj te xam naa ne da nga xaw a yàqamti am réunion boo war a dem. Mm-hmm. donc ma ñu fàttali rek ñu ngi yeeg honorable Awa Gueye muy responsable APR à Kaolack nekkoon aussi député au niveau de la treizième législature donc ban message nga mu bëgg a lancer bu mujj. bon message bi may lancé rek mooy Sénégal ñun ñëpp a ko bokk dañuy wax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te éritage bi nga xam ne suñu anciens yi bàyyeel nañu ko amul kenn ko am droit sappe ko parce que Sénégal dañ ko mus a xam ci dëkku jàmm Sénégal dañ ko mus a xam ci dëkku dialogue Sénégal dañ ko mus a xam ci dëkku dal personne nag muy man muy muy sama moroom muy keneen amoo droit saper les bases de cette cohésion sociale du Sénégal te loolu moo tax nag comme nag dëkk bi dafa am ay yoon am ay institution forte nañu respecté yoon yooyu nañu respecté institution forte yooyu bëgg nguur bu mu tax nga sappe les bases de la constitution ñàkk euh, bëgg tamit keneen falu bu mu tax nga sappe les bases de la constitution ñun ñëpp ci yem conseil constitutionnel moo fi nekk pour valider les candidatures ku mu neex déclarer sa candidat Karim Wade dama ca Doha bu ko neexee déclarer candidature am bu ñu ñëwee conseil constitutionnel na xool ki mën a dem ak ki mënta dem ne diw moo mën a dem diw mën a dem diw mënta dem diw mënta dem diw mënta dem ña mën a dem nañu dem ci jàmm ak salaam wax ak askan wi bu leen askan bi votelee ñu xam ne votel nañ leen su leen askan bi votelul ñu xam ne voteluñ leen jàmm ak salaam daal la ñuy ñaan ci biir Sénégal et je j'en fais un appel à la société civile mhm. ne leen ni ñuy organiser woo ay Y'en a marre ak ay France France frappe dégage ak ñoom mhm. ñëpp li nga xam ne moom laa leen di lancer comme appel mhm. mooy l'appel à la paix l'appel à la cohésion sociale l'appel à la stabilité sociale ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm déglu conseil constitutionnel lu mu décider rek ñu tënk ko. ñu ngi lay jaayee fële merci Khalil.